sa neex ci film bi. Mhm. ñu gis ni dañu dafa dafa daanu AVC. Mhm. mu daanu crise ñu yenn yóbbu hôpital. Mhm. waa hôpital nag mënatul wér ndax côté ndeyjoor bi dafay paralysé. te sax li des ci ak dundam dootul wax. loolu mooy rapport bi médecin yu joxe. السلام عليكم مكي أرجع من دول السنغال كاتي بي أما أحنا يوم بكتير أتوقع فرطان توما ديكا أجهز إميسيو بين تانا سن بوك دي لبيلر لبيلر ده هو بتاعي بفي تي بارسن إنت فيندر دي تجينا أشاوي فيكس في برام خام خام بومر بوحمد دردانة كريومي نيب كسرة عندنا خام خام مودي سرين محمد جين شاف بيني غلي نيو دي لجيرة تايتام دي لجوك سوا تشوي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم يعني بباخ di leen ziare te di leen ñaanal jàmm di leen baalu àq ci koor gi di di leen baalu àq di baalu àq àdduna bi yépp fépp fu jullit nekk rek ñu ngi lay ñaanal kooru jàmm aleyna wa aleykum ya rasulillah na tey itam matale euh, dégg nit léeg-léeg mu ni man sama maam la moom ci moom laa donnee xam-xam mm-hmm. wala nga dégg nit ne sama baay moo ko daan def jógee fi tax man ma def ko lan yow loolu daf laa waaw ñun mën nañoo wax ne doon nañ ko lenn ci suñu papa mm-hmm. waaye li ci gën a bëri nga xam ne moo ñu fondé mooy suñu sëriñu daara waaw mën nañoo wax ne lépp ci moom la soppeekoo mm-hmm. euh, mu ngi dëkk fële ca boori Casamance benn dëkk bu ñuy wax Nioro mm-hmm. daanaka li nekk ci ñun li ci gën a bari moo ko def si ñun. ak après nak gëstu comme gëstu bi day yonent bi daf ne woon gëstu leen xam-xam fi ngeen juddoo ba fi ngeen dé ñu ngi continuer nak di gëstu ba bisu tay bi inshallah ndax ci bir alquran dafa am ay secret yo xamanteni ni yeen di ngeen di utiliser manam maanaam fi yeeg réel yeeg yooyu ndax secret bi ci bir alquran ngeen ko jëlé wala wala jangam à part waaw magi magi suñu magi Sénégal dañ daan wax né mhm. ay bo jël ci alquran rek amna garab bu tollot waaye booy mënti jël ci alxuraan rek am na garab bu mu tolloon waaye loolu da koy gëstu nga xam ko su ko defee nga mën koo wut man leen a composé waaw loolu il faut xam-xam la mooy li ma la wax rek ñun sa àll ba lañ doon jàngee daan dugg ci àll bi di gaj yi di gor lu ne def nañ ko moo tax garab yu bëri dañ koy xam waaw macha allah. mu am baat la dasee leer ci suñu déggin ñi dañuy wax seet ñi di wax listixaar yi fi xaw ñu jaaxatu si listixaar ndax dafa am wuute ak seet waaw loolu boo ñu si laajee dinañ si sawar a tontu ndax boo xoolee listixaar ak seet am nañ wuute mooy li ñuy wax ne li seet listixaar yonent moo ko digle woon sallallahu alayhi wa sallam te daan na ko def muy lan da ngay julli ñaari rakkan def say dog laaj yàlla da nga koy laaj ba tey li ko uuteeg seet mooy seet man ngaa ñëw léegi-léegi euh, ay euh, seet façon seet yu bëri na ñii dinañ seetee ci ndox ñii kurus ñii ramlu ñii demet ba mu jeex léegi nag boobu moom mën ngaa ñëw léegi-léegi ki lay seetal wax la sa soxla léegi-léegi listixaar nag moom da faaw rek da nga koy def tëdd nelaw yàlla war na nga lii mooy seen différence incha allah am na ñu ne sax seet mu ngi jóge ko ci yonent benn yonent yàlla mm-hmm. kon nga xam ne seet bi ak listixaar bi uute nañ ala kulli haal léegi ci ñoom ñaar ban moo gën a wér ban mooy gën a leer waaw mën nañoo wax ne yëpp wér na waaye yonent bi moom lim indi moom moo gën a leer yonent bi moom lim xas a teg looloo gën a leer te looloo gën a wér mais est-ce que léegi-léegi du ngeen am jafe-jafe nit wala ndax sénégalais dañoo xaw a yàkkamti wala léegi-léegi bëgg nga wax ko soxlaam léegi-léegi waaw en général day am day am mais nit ñi léegi dafa mel ni listixaar bi lañ gën a gëm waaw day am nag mhm. mais dafa mel ni xaar bi lañ gën a gëm parce que li gën a bëri mhm. nit ki dalay wax ne la ku la oo rek dalay wax ne la listixaar laa bëgg nga defal ma mhm. listixaar laa bëgg nga defal ma seet rarement nga dégg ku leen seet xanaa ñi nga xam ne dañuy déplacé wu ñëw mais ah, li gën a bëri ñu lay oo listixaar lañ lay sant. effectivement defe naa loolu euh, bëggoon a waxtaan ak yow ci série bi ñuy wax wiiri wiiri mhm. mu am benn affaire boo xamante ni xëy na man dama ko def remarque ñu bëree bëri sax bàyyiwuñ ci xel mhm. mais dafa bëri lu muy xew ci suñu société mooy ñu gis ni abi ak ki ñuy wax Baye Fall mhm. yàlla dugal nañu sëy lu ëpp fukki at mais mënuñu fexe ba am taqandeer ci biir wax di da ngay dégg ni pexe mu nekk jéem nañ ko waaye yàlla mënul fexe ba dogal ñu am doom mm-hmm. loolu tamit dama koy indiwaat ci suñu société mm-hmm. mu ne na jigéen di sëy nekk ci biir néegu sëy mm-hmm. tëbu am doom ñu koy xas di ko wax lu nekk euh, ñàkk am doom ndax loolu lan moo koy waral seen bi waaw ñàkk am doom ci jigéen dana nekk loo xam ne euh, kii peut-être feebar la ci moom mais am na loo xam ne rab da koy waral faru rab yi ngay dégg nii da koy waral léegi ñu nit ki bu nga xamee ne série boobu noonu am na li ngay wax nii def naa bàyyi naa ko xel mhm. nit ki bu ñëwee tawatal ñu lu mel noonu dañ koy wax mu dem hôpital su demee hôpital am na feebar bu ñuy wax suma juumul nu mu tuddati fibrome xaw ma loolu bu nekkul ci moom mhm. bu ñëwee ñun ñetti ñetti règle lañ ko may ñetti règle mu jël ëmb insha allah li ñu koy dégg dafa bëri da ngay gis jigéen du si fukki at. Mhm. mu ne la sëriñ bu nekk dem naa fa lu nekk ñàkk naa ko ci. Mhm. ñàkk naa ci ay nangami millions sax am na ñu koy wax. te mhm. mënuñu saafara yow nga ne ñetti règle. waaw loolu xam nga lu koy waral. da nga dem ci nit. du xool say mbir par exemple da ngay ñëw ne ko man de damaa sëy lu yàgg aw ma doom rek mu dem ak yow ci li mu war a dem ak yow te xoolul exact lan moo tax gis nga xool. mooy baas bi. médecin boo demee hôpital balaa ñu laa defal dara. dañ lay xool. kon da ngay xol doga xam legi nak ki bu fekkente ni suñu borom mu ngi ci mom yaw nga ciyee ko di traiter traité traiter ko traiter jëmele ko ba la diru dundam du dang koy ebal hôpital wala nga wax ko ndax xol na bopam bu xolé bopam xamni lima la wax ni nekkut ci mom ñun bu ñëwé dinañ ko jëflanté ak mom inshallah allah est-ce que est-ce solo mu am itam feneen fo xamanteni bëgg na ko def taxaw seetlu mm-hmm. mu jaaxal ñu lool muy ki ñuy wax euh, sa neex ci film bi mm-hmm. ñu gis ni dañu dafa dafa daanu AVC. mu daanu crise ñu yenn yóbbu hôpital. waa hôpital nag mënatul wér ndax côté ndeyjoor bi dafay paralysé. te sax li des ci ak dundam dootul wax. loolu mooy rapport bi. médecin yi joxe. mais bi ñu ñëwee ñu dem ci garabu wolof. ñu gis ne fi mu toll mi ngi jàng dox mi ngi commencé wax kon dafa mel ni tubaab bi dafay tële. wala faj. loolu li ma la ciy wax mooy ndeysaan ñun jamono jii nii. Mhm. dañoo aj tubaab bi. wàccee suñ bopp boo xoolee mag ñi suñ mag ñi rarement ñu dem hôpital lan lañ doon fajoo garabi àll yi kase sunguf reen alxuraan jeex na boolewuñ ci dara te dañ daan dund wér wér boo xam ne maa day taani ak léegi lekk yi léegi loolu moom liñ la ciy wax mooy euh, loolu day day day delluwaat ci wàllu li nga xam ne mooy faj loolu dañu da ngay delluwaat ci wàll li nga xam ne mooy faj en même temps euh, kii paralysé maanaam paralysé euh, loolu nekk na feebar boo xam ne lu lu jafee faj ngay gis nag lu jafee faj parce que day dee côté bi nga da nga ne côté bi day dee day dee carrément waaye incha allah loolu lépp loo xam ne képp koo xam ne nii dal na la suñ jokkoo ñun dinañ la teg ci programme ndax gis nga sa neex dafa dem hôpital ñu ne mu gisuñ dara ba mu ñëwaatee lan la nga wax dafa delluwaat ci maaman yi léegi nag nit ñi lu leen lu leen jaxase mooy maaman da maanaam maaman lañ baatu maaman bi moom lañ bëggul di dégg te maaman day am da nga dem ci hôpital ñi xool la analyse de yaram yépp duñ gis dara mm-hmm. nga ñëw ci maaman yi ñu ne la léeg-léeg lii moo la gis traité la loolu nga gis sànneex kon nit ñi dañoo war a delluwaat suñu cosaan. est-ce que xalaatoon tamit ak manque d'organisation tamit dafa am yéen tamit ci seen biir moom mooy waral loolu tamit. dëgg la mos naa ko wax ci benn euh, programme. Mm-hmm. ma ne jamono jii ñi borom feuille yi moo bëri maanaam ñu yor ñu yor këyitu kase moo bëri <laughs> këyit xam nga lépp loo gis rek day dox ci ndigal mm-hmm. sayidina kii kii jabaru eh, yonent yàlla Ibrahima boobu noonu xaajara mm-hmm. ndigal moo ko may mu am zam-zam nit ñi di ko ziyaare kon lépp mu ngi dox ci ndigal mm-hmm. léegi nag ki nga xam ne nii tey misaal yow nga ñëw ne ma Baye Mohamed man de da mbir mi laa bëgg mm-hmm. sonal ma ci lool ma bëgg noppalu ci yow yëkkati ko jox la est-ce jox naa la ko ci ndigal joxuma la ko ci xol bu sedd ñun nag lépp loo xam ne nii ñu ngi koy jëfandikoo rek lépp loo xam ne ñu ngi koy liggéey ak jaamu yàlla rek ndigal lañ ci am dañoo liggéeyal nit ki ba mu sonn wala ñuy yëkkati suñu ñàkk joxe ñu jox ñu ko kon kooku jox na la ko ci ndigal lu dul lu am lépp loo am lu dul ndigal rek kayiti kese nga am loolu man Baye Mohamed maa la wax loolu. <laughs> kon nag mbokk yi seeti leen kii bi am dara te bàyyi leen di kese yi mbokk yi ñu fàttali leen ni seen émission léppay leer la woon ñu nekkoon fii ci parcelle unité 22 ci ginnaaw Auchan bi doon dalal Serigne Mohamed Dieng numéro moo affiché woon ci suuf suuf yow mi am soxla woo ko rek incha allah rabbi jokkoo ak moom lépp lu mu ci man mu def ko lu mu mën mu bàyyi suñu borom moom mi tënawul dara asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa